salaamaaleykum euh, di nuyu bu baax euh, Seck ak aussi di nuyu aussi auditeurs et téléspectateurs yi maa ngi tudd chaque Fall nekk chef service technique du chambre de métier bu Thiès. waaw bon tey vraiment dañoo kontaan trop ndax dañoo recevoir euh, benn gan boo xamante ni dès sa prise de fonction fii à Thiès xalaatam bu njëkk mooy visiter les chefs de service. xool autorité yi nekk au niveau de Thiès boole woon nag chambre de métier si programme de visite yooyu mu def. ba tey bañ ko recevoir dëgg yàlla ñu dalal ko le président dalal ko ak euh, vraiment toute l' équipe ñu waxtaan ak moom ci cadre coopération bi nga xamante ni ñu ak autorité locale yi fii ñu ko am ak aussi position champ de métier ak vision par rapport développement artisanat régional ak artisanat bu Sénégal vraiment te loolu aussi wax nañ ko tamit vraiment suñuy ay mbëbët mooy fexe ba au niveau euh, implication autorités locales yi surtout boo jëlee les collectivités locales comme les mairies comme ça ñun ñoo gën a mën a jàpp ci liggéey bi jàpp ci artisanat bi jàpp ci village artisanal fi nekk jàpp ci infrastructure yi ba moom mu jàppale ñu ci ñooñu nekkoon ñu suñu interprète ci ñooñu pour ñu véritablement ñu mën a lépp daal mën a jaar ci kanam bañ paree tamit def nañ benn visite euh, de terrain xool fii quelques sites yoo xamante ni aussi ay sites de référence la benn centre ressource bu fi nekk champ mi ci MCTEX dem aussi visiter benn ab galerie d'art te vraiment mu kontaan trop moom tamit vraiment ba sax lu mu yaakaaroon ni champ de métier xaw na weesu njox joxtaan parce que te ci niveau de présentation bu ñu ko def ak ci loolu daal loolu aussi doon moment bu solennel boo xamante ni euh, vraiment am na solo trop daal. non champ de métier amul secret euh, secret bi muy liggéey yàlla dafa def dafa am euh, à benn man moom vision bu mu am mooy fexe ba lépp li nga xamante ni ressource la lépp li nga xamante ni xéewal la li nga xam ne partenaire la yëngatu Sénégal wala ailleurs fexe bu mu mën a ñëwee Thiès mën di jëriñ artisan région de Thiès loolu moo tax euh, ba mu toogee ba léegi ñu bëri ay partenaires yoo xamante ni ñu ngi fiy ñëw ñu ngi jàpp ci liggéey bi ñu ngi jàpp ci développement champ de média artisanat loolu tax peut-être Thiès am bi vision am bi ora am bi xar kanam ba véritablement ku ci ko gis rek jàpp ni daal Thiès moom euh, war na doon loo xamante ni lu ñu mën a roy ci ay fànn yu bëri loolu la rek mooy vision donc de d'un homme mu bu koy mettre en application te mu jur ay résultat loolu daal mooy secret bu nekk am na secret boobu jërëjëf waaw di bi di la ko wax yi da ngeen di liggéey rafet na ndax communication da ngeen ci nekk ci fànn boo xamante ni bu am solo la te képp lu ñuy def artisan yi la donc foog artisan yi aussi mën a am information ci lu ñuy def moo tax euh, vraiment di encourager seen dynamique bi aussi artisan yi aussi ñi ngeen déglu ñu jàpp ci sponsoriser télé bi appuyer télé bi parce que télé bu développé artisan yi dañ mën a am cadre boo xam ne ci mën a wax seen i problème wax seen ay success stories wax seen ay mbëbët xamante ni ba autorité yi mën koo dégg te li ma di ñaanal rek mooy ci fin bi ba ngeen dem ba di concurrence RTS ay TFM te mën ngeen ko te incha allah yéen ngi ci yoon bi. je vous